salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen ñaan ngeen abone ngeen bës cloche de notification bi ndax lu wàcc rek ngeen mën ci jot yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi door a ñëw fii moom lépp luy information jëm ci wàllu football da ciy jaar tey nag dañuy ñëw ci gone yi nga xam ne ab góol la moom kat ñaareelu yoon a ngi nii kii di Aliou Cissé di ko woo muy kan Seyni Timothy Dieng bu ñu leen waxee ñaari yoon a ngi nii ñu koy woo dina jaaxal ñu bari mais moom ak Aliou Cissé yàgg nañu ndax. Euh, football na Sénégal U23 xale yi moom kat football na sax match boo xam ne Sénégal da ci doon am amical ak ñii di waa Colombie match ba nag Aliou Cissé moo toogoon ca banc ba di leen coacher moom mii nekkoon na fa sax match boobee 2-2 la jeexee Sénégal dafa defoon match niil moom mii nag dafa toog ca banc ba moom mii di euh, Seyni Dieng góoluwul ca banc ba la toogoon góoluwul kon mu mel ni bii mooy ñaareelu convocation moom mii nag jaar am na jaar-jaar ndax moom xale la mu ngi am vingt six ans vingt trois novembre mille neuf cent quatre kon vingt trois ans la am gone gi ma nga juddoo ca Suisse la juddoo moom mii di Seyni Timothy Dieng waaye nag euh, ren jii def na ay performance ndax góolu na lu tolloog trente cinq match maanaam fanweeri match ak juróom encaissé na fa quarante bi maanaam ñeen fukki bit la fa jël waaye nag def na ay clean moom am na fa dix match yoo xam ne kenn dóoru ko moom nag jaar jaaram moom jaar na. Dundee United ma nga fële ca Angleterre ak équipe bi ñu naan Doncaster foofu sax El Hadji Ousseynou Diouf di doomu Sénégal yàgg def a jaar na fa moom nag euh, ñu ngi koy xaar bu baax ndax góol bu am talent la te njool na ca kaw njool mu mat la macha allah am na taxawaay bu baax te yaakaar naa dina indil Sénégal lu ama ama am njëriñ naam sax kii di Edouard Mendy mu ngi fi mais dafa absenté nekk ko fi kon ñu ngi koy xaar bu baax ci ñaari match yi nga xam ne Sénégal am na ko. mu benn bi bi ci njëkk mu ngi am le 26 muy vendredi ñun ak euh, Congo Brazzaville jamono jii sax ñoo nga foofa bu ñu paree dañuy ñibbi si ñëw fii ci Thiès dalal fi Eswatini loolu mooy dernière journée muy qualification mille CAN 2022 muy amee fële ca Cameroun. waaw kooku mooy Seyni Dieng Seyni Timothy Dieng ñu ngi am yaakaar ne Aliou Cissé dina ko góoluloo ndax am nañu yaakaar bu baax. Euh, ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant di leen gërëm j'espère que di ngeen ko bàyyi xel bu baax ndax gune gu am am talent la ñu ngi ñaan nag ki ngeen abonné ci chaîne YouTube King Wouss Ngary lépp luy information rek incha allah di ngeen ci jot ci waxtu wi mu wàccee ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant